appréciation bi ma ci def mooy man je me dis que ni euh, livre Cheikh Yérim Seck bi dafa nokk selon man benn euh, loo xamante dañ koy poursuivre tey ci peut-être dafa nekk benn guerre d'opinion boo xamante ni commencé na déjà mhm. au Sénégal ci benn affaire ñu bëgg ko égaler également dans à travers un livre man c'est la conception que j'ai eu d'abord mhm. parce que je me dis que ni euh, Cheikh Yérim dafa commencer par daal ne Macky face à l'histoire léegi commencé na ci gestion président commencé na également euh, ci euh, du temps ba nga xamante nekkoon nag ak maître wadd ba mu nekkee euh, président assemblée ba convoqué Karim et tout ça li nga xamante ni fekk na ko ci revenir ci lu bëri ci loolu. wax également par rapport ak Ousmane Sonko ak Gambien bi ñu ko fekkee ci corniche ouest bi nee na dans une position ni mu ko waxee rek donc yooyu yëpp man su ma ci xuusee ma wax lu ma neex parce que. <laughs> du man maay policier yi mm. du man également man maay témoin mm. fekkeewu ma moom mi nga xamante moo yëkkati ay propos nag teg ko foofu moom peut-être am na ci ay éléments moo xam sa langage mm-hmm. mais man la conception ou bien li ma ci retenir rek man je me suis dit que ni en fait c'est un combat boo xamante ni entre deux camps bu moom Cheikh Yérim Seck daal di choisir ñëw indi ko ci biir livre bi parce que boo xoolee boo livre liiree ci livre bi bëri na ci ñu bëri ñoo xamante tey cité na leen te ñu bëri ñu tey jii dañoo bokk ci actualité une actualité assez récente boo xamante ni dégg nañ leen ci ay sorties yoo xamante ni def nañ ko fi tudd na fi ñenn ak ñeen ñenn ngoo xamante ni actualité chaude bii la donc pour man. c'est c'est c'est la poursuite euh, lii nga xamante ni moom moo xew actuellement ci landerneau politique bi ci affaire Adji Sarr Sonko mais également mu brossé waale ci loo xamante ni Macky Sall mi ngi naan euh, ñi ngi naan sax Sonko nee na da koy euh, da koy porter tout ça mu amaat citation directe mu amaat égale beneen également beneen réponse bu mu serviraat ce mhm. matin mhm. donc pour dire que ni moom également bu fekkee dafa bind livre boo xamante ni warul doon livre peut-être pour parce que ñi ngi nekk ci période procès la ñu nekk. Mhm. donc bu fekkee dafa bëgg indi benn affaire boo xamante ni mu ngi en cours nekk ci justice bi pendante devant la justice ngay indi yeneen affaire yoo xamante ni des des des choses yoo xamante peut-être ñenn ñi xamuñu ko ñii nee na ñoo c'est de l'histoire travestie et tout ça c'était pas. le le le lieu en tout cas du li liñ doon xaar parce que titre bi nga xamante ne ci la gestion de Macky et tout ça lañ doon xaar peut-être Macky da ko brossé sax moom man moom laa gis. Mhm. liñ doon xaar exactement moom da ko laal mais le prétexte choisi en fait c'était un prétexte choisi pour mën a wax ci lii. c'est mhm. la conception que j'ai encore ci chapitre yi nga xamante ne lire naa ko. gën a enfoncer également Ousmane Sonko wax dépeindre ko. par rapport ak ñi nga xamante ni peut-être am nañu benn estime ci moom am nañu tamit euh, benn choix bu ñu porte ci kawam peut-être daal di écorner image am foofu li ma mhm. jot a lire jusqu'à présent muy loolu nga xamante ni euh, chapitre boobu bokk na ci noonu la bëgg présenter peut-être euh, Sonko à certains Sénégalais d'accord Mame Birame moom Cheikh Yérim Seck bind livre bi Ousmane Sonko xëy suba ba noppi dédicacel kooku yónnee ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko xëy suba jël capture dédicace bi dugal ko ci page Facebook am ak ci euh, yeneen plateforme am wax ni que non seulement du liir livre bi mais dina ko servir li nga xamante mooy citation directe parce que dafa jàpp ni euh, kaddu yi nga xamante ne da ko yëgti jagleel ko ko dafa nekk ay kaddu yu mensongère maanaam ay fen et diffamatoire euh, dafay yàq deram donc ci lan nañu jëm la jóg confrontation diggante Ousmane Sonko ak Cheikh Yérim Seck wala Cheikh Yérim Seck réussir na li nga xamante ni moom la bëggoon mooy coup médiatique boo xamante ni dina ko porter no mais xam nga coup médiatique moom euh, am ko dafa yomb. surtout bu nekkee ne capable nga wax wax yu rëy jëmale ko ci ab leader politique te loolu tegoo ko ci lenn loo xamante ni lu sérieux la. Euh, te livre bi man li ma jàpp mooy. waaw euh, deux cent quarante quatre pages la mais benn page moo ci am solo muy page bi wax ci Ousmane Sonko. Mhm. ci li ma jàpp. leen yëpp verbiage la. li en réalité sax page boobu moo tax ñu bind livre bi. Mhm. surtout ci contexte bi mu daanu si nii. wax na ko dañuy dem procès information euh, mujjee ñëw. Mhm. wax ne livre bi génn naa génnut. Mhm. quelques heures après ñu ne la doyen des juges nee na procès day am. timing boobu pour man c'est pas gratuit. absolument te euh, Cheikh Yérim nu muy waxee nu muy décrire Ousmane Sonko. day mel na quelqu'un boo xamante ne nii day décrir benn profil psychologique d'une personne boo xamante nii elle est au centre d'une controverse mhm. maanaam tey ñi nga xamante ni nekkuñu Sénégal lire nañu livre euh, Yérim bi dañ dañuy jàpp ne mën na leen a permettre kat ñu am une idée pour xam ce qui se passe entre Macky Sall ak euh, Ousmane Sonko mhm. léegi nag bu yemee ci livre euh, Yérim bi rek mhm. day jàpp ne kat Macky Sall c'est un très grand démocrate. absolument moom bu adversaire am nekkee ci ay affaire yoo xamante ne nii leerut sax danaan seetaan leen ko que le meilleur gagne nañ dem élection ki am meilleur programme bi ak ki sénégalais yi wóolu ñu votel ko. lu comploté. du comploté boo liiree page boobu loolu la lay jox ci Macky mu jox la ci Ousmane Sonko koo xamante ne nii kat bu ko aji Sarr jiiñee affaire viol war na mën a nekk parce que. koo xamante nii la day dem ci ay corniche wala day dem foo xamante ni waru faa dem di fa nekk ak ay jigéen. Mhm. bañ koy jàpp. très bañ koy jàpp maanaam def na profilu ñaari nit ñi bind ko en français nga xamante ni ñun souvent suñu débat yi olof lañ koy def. Mhm. donc ñi nga xamante ni dégguñu olof te bëgg nañu xam li ci xew bu ñu liiree livre yërim bi te wóolu ko idée bi ñuy jàpp mooy Macky du comploteur idée bi ñuy jàpp mooy kat Ousmane ko moom day wër di taxawaalu. Mhm. loolu la ñu Yérim Seck décriral ci euh, livre boobu léegi ma ne bu nekkee da ko def ci context bi te surtout livre bi tey déjà mu ngi ci PDF yi mu ngi en PDF mhm. mu ngi circuler ci réseaux sociaux yi sànq maa ngi fàttali ne man génne naa livre en deux mille 2017 ci armatan boobu waaw jusqu'à présent livre boobu kenn mënul am benn page bu gën a ndaw ci en PDF ci ci réseaux sociaux yi kenn mënu koo am donc moom bu demee ci même maison d'édition bi publier fa livre même pas dédicace livre bi wala même pas annonce officielle livre bi sortie officielle livre bi ñu ne am na ay fuite dama naan fuite boobu c'est organisé liñ si jublu na mooy parce que man bu ma daan euh, bu may génnee sama livre jël toutes les garanties pour que du am fuite en PDF li ma doon xalaat mooy sama livre bi kat war naa koo mën a jaay mu jox ma des moyens. rentabilité am rentabilité doon xool. Mhm. mais moom seetu ci rentabilité lu muy xool mooy na ko maximum de monde lire. Mhm. na ko maximum de monde lire loolu moo tax tey facilement livre boo xamante ni nekkul en en en librairie nga mën ko am tey en PDF. Mhm. na ko maximum de personnes lire te li tax maximum de personne war ko lire mooy li ma wax sànq ci timing bi ak ci sujet bi muy débat maanaam tey. ñu ngi naan dossier Ousmane Sonko bi ba bi ñuy xëytee xamaguñu woon mais ñu ngi naan doyen des juges pare na si tey jii nii dafa war a jébbal dossier bi ab euh, juridiction. Mmh. ñeneen ñi naan non dossier bi moom xawma ci juge bi ci lan lay basé wu pour ne procès day am ci contexte boobu la ñuy ñëw mun nañu Ousmane Sonko nii la mel Macky Sall la mel mais bu nekkee ñun entre sénégalais bu doon Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen waxu ci ah. mais livre bi sénégalais yu bëri duñ ko yëg parce que quand même Yérim Seck sénégalais yi même bu ñu d'accord ne am na un certain talent ci presse bi mais dañuy xam ne nekkul koo xamante ni crédible na de sorte que li muy bind da koy teg tout simplement ci xam-xam mais pas ci parparloo ak leneen ak leneen ak leneen. am na yeneen talent kese. Euh, ma ko. Mhm. tout simplement. Mhm. yeneen talent caché yooyu sax ñu koy wax di wàllu mœurs moom euh, mœurs sax tubaab day bañ es bi euh, moom euh, Ramatoulaye ñu jàppoon ko condamné woon ko pour viol bu wëlbatikoo di waxaat ci viol bi ba noppi ba muy tontu sax ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mu ni ko ci mbiru mbiru mœurs ak yooyu noonu mën na ci bind livre parce que xamal na Sonko loo xamante ni peut-être voilà mat na livre ci ay mbir yoo xamante ni voilà lu mbir yoo xamante nañ koy waxtaanee ci place publique. Mhm. est-ce may war na ko may mi yëkkati yenn kàddu yi di ko teg. moom laay wax euh, xam nga euh, nit ñi aussi nit ku nekk <clears throat> je veux dire euh, Yérim tey mi ngi wax affaire u mars Ousmane Sonko. mais kenn fàttewul également moom son son passé récent aussi. Mmh. parce que cité nañ ko fi ci ay viol cité nañu doomam aussi ci viol. donc je pense que man je me dis. que ni de père c'est mal placé pour moom. moom il est mhm. mal placé pour parler de mœurs. Mmh. parce que yow mën nga wax mœurs ci kaw. amoo benn passé boo xamante ni ah c'est immaculé. moom ñëpp a xam fi nga xamante ni jaar na fi c'est tellement récent c'est encore euh, ah euh, dans l'esprit de tous les Sénégalais moo tax euh, je me que ni jugement wala di juger nit kii moom ñëpp mënoon nañu juger ba mu des moom. c'est mon avis parce que bu fekkee yow amul lenn loo xamante tu quoi que ce soit bu fekkee amul lenn looy reprocher sa bopp. sax waroo di juger à plus forte raison nga am loo xamante ne tey jii yow leer na ne boo waxalee diwul nangam mën nañ la génneel yow it sa bos. boo boo tuddee kay mu génneel le dictionnaire. c'est ça donc tey jii bu fekkee wax na ni mën na bind livre ci affaire mars ci Ousmane Sonko. Mhm. mais ñeneen également mën nañu wax ni yow it mën nañ la bindal lii parce que xëy na ñun yii la ñu yëg muy affaire de viole bi ak euh, beneen boobu nga xamante ni dañ doon wax euh, une fille bu mu doon jéem a avorté loo ba ñu tëjoon sax euh, gynécologue bi et sax ça. Mm-hmm. donc c' est des yoo xamante ni tey jii sénégalais fàtte wuñu fàtte fàttelu moo fi am. loolu sax est ce que du deux mille deux mille vingt deux. waaw wala vingt un boobu. donc fàtte fàttelu laay bëgg a wax te book mu nekk aussi pourquoi man je veux même pas en parler parce que je me Euh, ñun book amuñu luñ ciy gagné amuñu lu sa ne nous avance à rien mhm. parce que ay wax yu ñaaw la. Mhm. wax yu ñaaw yoo xamante ni moom ngay servir nit ñi. Mhm. te wax yu ñaaw ci gémmi ni ku mu jógee nit kooku également moom ci boppam am na loo xamante ni mi ngi ko ëmb ci biir këram mi ngi ko ëmb dund ko sénégalais yëpp dund ko en direct. kon on on s'attendait pas à ça ci livre bi peut-être livre bi waroon na nekk loo xamante ni da ngay informer ci lu ñu mën ci lu ñu xamuloon. ak loo xamante ni peut-être euh, ñi ngi koy xaar ou bien nga génne loo xamante ne sax dafa nekk ci gestion bi ou bien loo xamante ne institution yi la nit bàyyi woon na espace public yooyu yëpp waaw mais loolu xam naa ne c'était juste pour choisir son moment pour génne lii nga xamante su booba mhm. dina am lii mu bëggoon partage bi au niveau de tout le monde ñëpp di ko partager ci réseaux sociaux et mhm. mais daal wax gu ñaaw aussi on peut vraiment se passer de ça parce que mhm. fii ku ci nekk xas ñu bëri euh, bokk na ci ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak ñooñu euh, bëri na daal ñu ngi ciy xas ñoo xamante ne jàpp na ni Macky moom moo leen créé mais moom dafay fàtte que ni euh, bu mu nee toog ci place Euh, public di wax Macky Sall moom moo tax parce que Macky Sall ci boppam moom moo ko gracier euh, gannaaw ba mu nekkee di jooy di naan lieu de détention boobu mu nekk mënatu fa nekk parce que damm nañu ay bëñam bët yi gisatul si lañ ko génnee defoon ko sous contrôle judiciaire la après ñu koy defal li nga xamante ne mooy euh, grâce présidentielle moom est-ce que tey jii il est bien placé quand pour tudd ay nit ñoo xamante ni Macky Sall la leen kii parce que jàpp na nit ñi waruñu génn ci télé wala ci rajo non ñooñu muy wax sax xam nga ñooñu moom xasul leen de sénégalais di déglu lay xas sénégalais yooyu la jàpp ne ñoom ah tekkiwuñu dara xar sax mën nañ koo déglu. ñooñu moom moom ñu moom ñoo ñu lay xas mais dans tout les cas xam nga toll na fi temps yoo xamante ne nii ñu ngi doon posé wu beaucoup de questions sur certaines personalité yoo xamante ne nii dañ leen a tuumaal ay faits yu grave ba pare dañuy dugg kaso rek génnaat. ñu tuddoon ci lim ñu ko laay nga xamante ni dañ ko doon tuumaal ci affaire drogue wax ay cocaïne nag yooyu. dem tribunal ak yooyu ñu jugé ko condamné ko on essaie par quel miracle mu génnaat di organiser ay làmbam mais buñ pare woon ci Luc Nicolaï rek yërim lañ ci doon teg. Mhm. parce que yërim dafa dem taxaw devant le juge. Mhm. moom moom xam naa ne li mu bëggal Ousmane Sonko. c' est parce que da jaar xam nu mu méttee moo tax xam naa mu sawar bëggal ko ko. parce que yam doon wax noonu si tribunal ba ba léegi nit ñi ñu am na ñoo xam ne ñu ngi koy fàttaliku. koo xamante ni mosul xam jigéen mosul xam góor boog du moins. koo xamante ni mosul xam góor. Mhm. nga dem yóbbu ko fenn foo xamante ne ni seq nga fa ak moom loo xamante ne ni tribunal la mujjee. Mhm. kooku bu nekkoon ci pays bu normal xam nga ne dootoo génn di dem si média yi. tey jii nii Cheikh Bara Ndiaye moo war a gën a nekk ci média yi que Yérim. parce que dañuy naan da nga. non non c'est que Cheikh Yérim heure bii prison la ko waroon fekk ba léegi. waaw viol moom crime la. waaw mhm. heure bi prison la ko waroon fekk ba léegi wala ñu naan la Yérim barki démb la génn wala barkaati démb. ay dix ans ak vingt ans waaw dix ans vingt ans. Mhm. ñu naan la barki dem barkaat dem léegi nag bu nekkee ne yow def nga njombe bu toll noonu briser carrière une jeune fii ah ko toute son existence quelque temps après nga génn nit ñi di la considérer comme une vedette de la télé bu la neexee nga xas ñeneen ñi nga xamante ne nii dañ laa dab ëpp lay vue mhm. c'est aussi simple que ça mais moom comme nu nga ko waxee il est très très mal placé pour donner des leçons de morale à qui que ce a ci Sénégal gii. Mhm. du kenn. Mhm. en tout cas ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yow Mame Birame Wathie ak euh, Ramatoulaye ak. sept mille personnes yi nga xamante ni ñu ngi doon suivre ci page euh, YouTube Walfadjri di su di jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñooñu doon bàyyi xel ci 99 point 0 euh, dernier mot Ramatoulaye mhm, ba demee incha allah nga fexe bañ a tardé yow kay lañ koy wax yow moom da ngaa avodé